asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokk yi safoo seen chaîne bii di Xam Sam Réew TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara am mbégte lool teewaat fii ci seen émission bii di Xam Sam Réew te ñu wax ni ko xam sam réew war a xam ñooñ sam réew war a xam goxi sam réew waaye war a xam itam xew-xew yi sam réew dooroon e, nañu ak yéen démb mbirum teeñ dammeel Latir Sukaabe Fall wala Lat Sukaabe waxoon naa leen ni soo demee ci mboorum Yoro Jaw muy mboorum dammeeli Kajoor l'histoire des dameel fukkeelu dameel ak ñeent ci Kajoor di Lat Sukaabe am na nu mu ko indee woon waaye journal boo xamante ni bii ñu ngi ko doon wax la lanterne di journal bu ñu sosoon ci atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar 1877 soloon sosoon journal bi ba ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci la yëglekaay boobu noppee génn moom yëglekaay boobu nag journal bi mu génne woon ci fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre ci atum junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent le 14 octobre ci la nettali bi ñu dooroon démb rote woon te nettali bi mu wax ni mi ngi ko jële ci koo xamante ni bii ab magistrat la nekkoon fii ci Sénégal am sëriñ bu ko dénkoon ay alluwa alluwa ya sax wax na ni maanaam ak ron garab gi ñu wax ron xam nga ron car bi dafay am lu gudd lu ci nekk car bi doog a firiku loolee nag nee na ci la sëriñ boobu bindoon nettali bi jëm ci Lat Sukaabe dénkoon ko tubaab boobu doon ab magistrat ngir mu dencal ko ko nee na tubaab ba moo ko traduire moo ko bind ñu ñëwoon ak yéen démb wax leen kan moo doon Latir Sukaabe Fall wala Lat Sukaabe non la doxoon digganteem ak baayam ak ay doomi baayam ba taxoon baayam gis ni jikkoy Lat Sukaabe wuute naag jikko yi Biram Koddu ak Masamba Koddu ba tax mu demoon ci ab sëriñ ni daal moom dafa bëgg sëriñ bi xoolal ko ndax moom bëggul Lat Sukaabe wuutu ko ci Yaasin moo doon teeñ ci Bawol ñëwoon nañu ak yéen ba bi mu demee ci sëriñ bi ngir sëriñ bi seetal kon tey fi ñuy doore mooy lan la sëriñ bi wax teeñ ci yaasin xanaa di leen jéggalu rek li ñu daloon démb dañu amoon ay tolof-tolof waaye tey jël nañu ay matuwaay incha allah bi ba du am na xam ngeen émission bi dafa jekki woon jekki rek dagg ñi ci bàyyiwul xel ñu di leen xamal ni defaatoon nañu beneen vidéo ngir li émission bi kon émission démb bi ñaari pàcc la ñoo ngi tàgg woon ak yéen ci bi teeñ ci Yaasin ñëwee ci sëriñ boobu ngir mu xoolal ko sëriñ bi dugg xalwa ay yoon yoon def ay ñaan ba mu noppee nag bi teeñ ci Yaasin ñëwee laaj ko lu mu gis nee na sëriñ bi daf ko ni am naa lu ma gis de mu ni ko lu mu doon mu ni teeñ ci Yaasin da ngay jël ab gàtt am xar nga rey ko ñu togg ko def ko ci bagaanu cere xar mépp bu ñu ko rendee ba fees ko nañ ko toj togg ko ci cin def ko ci bagaanu cere boole ko cere ni ko nag sa doom yi nga may laaj képp ko ca xamante ni bii moo jëfandikoo bopp xar ba maanaam moo lekk boppam xar ba kookee moo lay wuutu ca yaasin sëriñ bi ni ko nag da fexe ba soo toogee bagaanu cere yi sa doom yooyu ñoom ñett da fexe ba ñu wéet nga xam ni kenn du leen rax nga jox leen ko ku lekk bopp xar mi rek moom moo lay wuutu te ci yaasi ko waaw kon baax na jamono yooju fekkoon na mbay mi do mi ba ñuy toll ci jamono yi li ñuy wax farmango te mooy bàcc naa fi jëri gerte gi jël ngooñ mi teñce yasin ni ñetti doomam yooyu burim kodd burima kodd masamba kodd ak latsukaabe suba dama bëgg ngeen xëy ca tool ya yéen ñett ba mu ko waxee Lat Sukaabe ni ko baax na man de dinaa teel dem ñaari doomi baay ñoom daldi wut aw lay ngir bañ a dem waaye seen baay ni leen mun leen a ñàkk a dem ndax ngooñ mi nga xamante ni bi moom la ñuy xonte fas yi warees na koo saytu ndax bu nooree moom la ñuy xonte fas yi li mu jàpp ci xelam mooy ci nii rek la mën a fexe ba ñoom ñett ñu wéet ca tool ñu yónnee leen bagaanuk cere gi waaye ñaari doom yi bàyyi ñu maanaam yenn ñaari doom yi ñoom daal di lay wut aw lay ngir bañ dem ndax sukaabe moom ñi ko man de dinaa teel a xëy waaye ñaari doomi bàyyi ñoom ba léegi nungoogu ñoo dem lay wu nekk nee wut nañu ko ngir bañ a dem ci tool yi waaye nee na bëgg-bëggu seen baay boobu nag mu ni leen mun leen a ñàkk xëy suba dem ca tool ya ba ñu amul pexe nag nee na ca lañu ñu nungu ngi seen baay kon baax na dana nu xëy dem tool ca suba sa ca fajar rek lat bi moom daal di jóg daal di dem ci tool ba tàmbali liggéey ba dem na fa ba mu naaj te doomi baayam yooyu ñëwuñu waaye moom yëgalul yaramam loola la ko war ca liggéey ba rek ca la nekk ñoom doomi bàyyi bi ñu ñëwee bi ñu ñëwee booba dañu daan béy gerte ak sëb ngooñum mi dañ ko daan aj ci kaw garab ngooñum sëb mi ñoom ñu jekki ba njoll bal ba yor yoor bu dëgër ñoom ñaar ñu ñëw fekk lat sukaabe ci tool bi nee na bi ñu ñëwee dañ ko ni yow da ngay yéeg ci kaw garab gi ñu di la jox ngooñum sëb mi walla ngooñum gerte mi nga di ko aj ci kaw garab gi mu liggéey boo xamante ni neenam lar yi maanaam jaam yi ñoo daan def liggéey boobu waaye ñàkk nawloo Lat moo tax ñu ni ko da ngay yéeg ci garab gi moom Lat xam na ni lii wërta nekk waaye mu nungu ko xam na lañ ci jublu waaye faalewul loolu yëpp dafa daal di yéeg rek ci kaw garab gi di def ab liggéeyam na mu ware nees tuuti am jaam boo xamante ni mu ngi yenu bagaanu cere gi cere jooju nga xamante ni xar mi sëriñ bi waxoon teeñ ca yaasin moom lañu teg ci kaw cere ji ak ndawal gi maanaam dañoo jël bagaanu cere gi nee na wërale ko ak ndawal gi jël boppu xar bi teg ko ci digg bi bi ñu egsee maanaam lar bi doon indi cere ji daldi yenneeku ndabul cere li te booba fekk na ci kajoor bopp moo xam nag la walla xar la waaye lu ñu mën di rey bopp ba lañ ci gën a xeeb doomi buur daawu ko jëfandikoo bi ñu tegee ndab li fekk Lat Sukaabe mi ngi ci kaw garab gi mu daldi fas yéene wàcc ngir bokk ak doomi baayam yooyu ngir ñu xewlu waaye doomi bàyyi ni ko déedéet yow yeggaleel li ngay def rek di fi fekk sa wàll dana nu la desalal nun bu nu lekkee ba noppi boo wàccee rekk lekk des wi loolu yépp lan lañ ci jublu la ñu doore woon nekke woon ko ak moom te mooy suufeel ko waaye moom mu daldi di ndigal des ca kaw garab ga wàccut ñu ni ko boo noppee rek wàcc dinga nga fekk sa wàll li fi des nga lekk ko te loolu itam lekku des ci kajoor booba ñi ñuy yilif rek ñoo ko daan def maanaam ab la wax ñuy woy ay prince kenn xalaatu leen a jox aw des waaye Lat Sukaabe doomi bàyyam yi toroxal gi ñu koy toroxal li tubaab di wax ba léegi rek loola ca la ñu nekk la tukaabe daal di toog ci kaw garab gi wàccul waaye am lu ko metti lool waxu leen ko waaye des wiñ ko nar a lekk loo metti na ko waaye waxul dara dafa muñ rek daal di ab liggéeyam ci kaw garab ga biram kodd ak masamba koddu daldi di tiim cere ji ak ndawal gi di lekk lekk ndawal ga ba mu des bopp ba ñu ni ko eh sa wàll ngi ni ñu bàyyi la fi mooy boppam xar mi loolu sax ëpp na ci yow lekk nanu ndawal gi léegi boppu xar bi mooy sawal boo boolewu ci ay wax dafa wéyal ab liggéeyam rekk ba li mu doon def ci kaw garab gi bi mu eggee la doog a wàcc bi mu wàccee daldi ubbi ndab li ndawal gi fekku ci lu may boppu xar bi mu daldi jëfandikoo boppu xar ñu gis ni jaam ak pexeem waaye yàlla ak ab dogalam ndax seen baay bi ko sëriñ bi ne ku lekk boppu xar bi kookaay doon teeñ moo lay wuutu bu amoon sañ-sañ ba walla mu man koo déy doom ya kon latsuka bi du fa fekk boppam xar bi waaye wéye ndigal ak nungu ndigal tax na bi ko doom bi bàyyi toroxale vexé ko li tubaab di wax vexé yéegloo ko ci garab yi te lool du warteefam mu bëgg a wàcc ñu ne ko déedéet wéyee leen liggéey bi saa ba wàcce rek di nga lekk dana la fi desalal amuñu luñ koy desalal lu may bopp bi nga xamante ni ñi ñu yilif ñoo ko moom ñoo ko war di jëfandikoo te nekke bopp boobu kat li ñuy wër ci bopp xar mi la nekk ndax loolu la sëriñ bi waxoon teeñ ca Yaasin bi mu demee noonu nag ndax jëfandiku na ci cere ji waaye lekkaale na boppu xar mi ba ñu bàyyi ci tool yi seen baay mi ngi yàkkamti ñu dellu siwaat ci kër gi lool ngir mu laaj leen nu ñu def ak ku lekk boppam xar ba bi ñu ñibbisee nag seen bàyyi woo leen ñu ñëw mu laaj leen da ngeen def ca liggéey ba ñu ni ko liggéey ba de liggéey nañ ko latukaabe bi moom lañu waxoon mu yéeg ci kaw garab gi ñu koy jox ngooñ mi bi ndab li ñëwee itam mu bëgg a wàcc dañ ko ni wéyalal liggéey bi rek dana nu la desalal danu lekkee desalal ko fa boppam xarma seen bàyyi mel ni dañ koo dóor aw yat ñu ni ko nag ba mu noppee la wàcc ñëw ndagam bopp xarma rek moo fa desoon ci ndawal moom la lat sukaabe lekk nee seen baay mel ni kuy miir jaaxle lool ci lii ko doomam yi wax ndax sëriñ baa woon ku lekk bopp bi moo lay wuutu ñaar ñi mu bëggoon ñu wuutu ko lekkuñu bopp bi ki mu bëgguloon woon mu wuutu ko kooku moo lekk bopp bi ba tax na teñ ci Yacine am lu ko metti lool ci li ko doomam yi wax lan la def dafa daal di waaj rek takk ni day delluwaat ci sëriñ bi nga xamante ni moo ko xoolaloon wax ko li xew ngir sëriñ bi coppat ko ndax la mu bëggoon amut ki mu ñi mu bëggoon ñu lekk bopp ba lekkuñu ko lat lekk bopp bi kon faaw day delluwaat ci sëriñ bi mu xoolaat yëf bokk yi te ci yaasin waaj na ngir delluwaat ci sëriñ bi su ngeen bëggee xam nag ba mu demee mbir ma nu mu demee ak fu mu jëg sëriñ bi da ñuy topp ci ñetteelu pàcc bi kon fii lañ koy yemale maa ngi leen di sant di leen gërëm ci farlu gi ngeen farlu bay ànd ak nun ci seen chaîne bii di Xam Sam Réew TV di ziyaare ñiy safoo chaîne bi muy ñii safoo Xam Sam Réew TV ngeen xamal ni am na kippaango gu nekk ci Facebook bi képp ku ci bëgg a tàbbi rek soo ko sàkkoo danañu la tàbbal ci kippaango ñuy safoo xam sam réew TV xanaa di leen sant di leen gërëm te di leen soññ rek ci abonnement yi neewoon naa leen ajuma ji jàll la chaîne bi am ñaari at waaye ñeen fukki nit ñeen fukki junni nit ak juróom abone nañu ci chaîne bi di ñu topp kon noo ngi leen ci sant di leen ci gërëm te di leen ñaax bu ngeen seetaane vidéo bi fi ñu bind s'abonné ci mbind mu xonq rek bu ngeen ko ba bësee da ngeen daal di mën a tabbi ci biir chaîne bi vidéo bu ñu dugalati rek ngeen daal di koy jot kon noo ngi ziare bokk yi nuy nemmeeku ànd ak nun sëñ Ale Fall di ko mboor ñor waaye noo ngi ziare itam euh, sëriñ Abdou Aziz Touré ci Fass ak Kipango di jàppale seen chaîne bi di xam sama réew TV te nekk ci Amérique te Bamba Mbengue jiite ko ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ni teñ ci Yaasin waajaat na dellu ci sëriñ ba mbokk yi topp leen nu ba mbir mi li wolof yi wax wànneen fan la wànneen di mujj ak ay gëtëm kon maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf